nationale ak suñu bailleur de fonds yi projet yu bari manqué jëmee ci ndaw ñi ak ci jigéen ñi waaye li may jëkk def nag loolu aussi idée boobu maa fi jëkk génne man nag xëccoowu maak sama moroomu opposition yi lu ma wax nu rafet man nañ si jaaraat parce que man dama jàpp ni maa ngi bokk dans le camp du changement man duma nàññ duma ŋaañu képp ku ma bokkal opposition waaye nag su ma yëkkatee sama kàddu ba àddina yëpp di ma dégg ma def loo xam ni kenn masu ko def man ma bàyyi ba Macky Sall def déclaration ma la nation ma woote àddina bi yëpp di ma déglu ma jël point par point ci déclaration bi wax ka ni ko waxuloo fi dara jóge foofu ma génne sama programme domaine boo gis rek génne naa fa sama programme wax naa ni ressources yi nga xam ni pétrole bi daf koy générer wax naa ni bor bi senegal yor wax naa ni les contrats pétroliers wax naa ni les contrats miniers lépp danaa toog waxtaan ba nu réviser contrat yi lu fa jëlee danaa ko jox ndaw ñi ak jigéen ñi dama leen di jàngal liggéey dama leen jàngal su ma sañoon sénégalais bi nekk am métier soo amee métier ma dimbali la ba nga liggéey soo liggéeyee mënal sa bopp loolu mooy sama bëgg-bëgg danaa jël commune yi waxoon na commune bi gën a ndaw ba commune boo xam ni moo gën a mag danaa ko jox un milliard cinq cent millions Nous day tax ñu man régler problème non c'est un problème courant. courant un problème lepp lu jëm ci affaire euh, ci infrastructure sanitaire ba paré def unité de transformation Macky Sall dafa wax ni dafa développer agriculture mais je fekkee da ngay développer agriculture te sa agriculture yëpp mooy produit agricole gerte ngay jaay fexewuloo ba partout nga def ay usine de transformation ku am gerte man defar ka am dawlin am saabu am leneen nga man ka jaay li nga fay jële mu am solo kon jàpp leen ni man sénégalais yi laa jiitu laa jiital si li ma bëgg Kolda gi jox naa leen fi rendez bu ni ma jëlee rendez-vous Ziguinchor ñi ma jële rendez bu Sédhiou ñaar ba ñetti at yi ma toog bëgg naa ko soppi ba ku ñëw Kolda daa xam ni beneen gouvernement moo fi nekk. kon li si des mooy maa ngi gërëm ñëpp maa ngi gërëm ñi nga xam ni ñoo fi nekkoon di Ibrahima Koyta ak ñi mu àndal. di Marem Marème Diallo di Ibrahima Seydi waaye nag dafa am ay jambar yu ma fekk si Mamadou Lamine Diante ku xam-xam ni jambar lo, Njaay Njaay lo ku xam ni borom xam-xam la te jàmbaar lo Ibu Jaata kuga ko gis xam ni borom jambar lo. Ibu ah Inde Gueye ak Tapa Diaw. nag il ma taxaw si moom tuuti Tapa kuy natt góor kuy natt ku bëgg sa kuy natt ku bëgg Kolda soo ñëwee si Tapa fa ngay sóoratu. Tapa yàlla nañu ko fi yàlla bàyyil ba mu fekkee sama ndam ma teral ka ba Kolda yëpp kontaan. jërë ngeen jëf Kolda yéen a baax yéen a dëggu kontaan na jërëjëf jërëjëf Kolda jërëjëf jërëjëf Kolda jërëjëf